ay yaay suñu gaal moo tam sa tur ter Sénégal li moo waral te Sénégal ay ab dotoog doon sa misaal.
Abdoulaye yaay suñu gaal moo tam sa tur ter Sénégal li moo waral te Sénégal ay ab dotoog doon sa misaal.
Mam Abdoulaye yaay suñu gaal moo tam sa tur ter Sénégal li moo waral te Sénégal ay ab dotoog doon sa misaal.
Abdoulaye yaay suñu gaal moo tam sa tur te Sénégal li moo waral te Sénégal ay ab dotoog doon sa kon misaal.
gaal gaa ngi daw ci al ayeen waaye tey bi aw yonen demal nga seeti alquran da xam na ñas moom moo fi maa Abdoulaye yaay suñu gaal moo tam sa tur te Sénégal.
waaw li ma waral tey Sénégal ay ab jotoon doon sa daal misaal.
ba sab same man dama xool tal baa ngi def ku weex ku ñuul ma xam na ñes jaama na mbaal bar ama ñes moo di sa mbaal ma Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool tey Sénégal. li ma waral tey Sénégal ay ab jotoon doon sa misaal.
bu aar bu international moo ma xamal doon national bayaa di international te mbir yee mool ci Sénégal ma Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool tey Sénégal.
Waaw.
li ma waral tey Sénégal ay ab jotoon doon sa misaal.
tariqa seex yaa koy dundal te boole koog sunnay rasul ndax seexi baay yaa ko saxal ba jóg taxaw di bay sa tool Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool bay Sénégal li ma waral tey Sénégal ay at sa tool doon sa misaal.
Mam Abdoulaye yaay suñu gaal moo tam sa turu tel Sénégal li moo waral te Sénégal ay Abdou Top doon sa misaal gal kaa gi daw ci al ayet waye tajri bi aw yonen demal nga seeti alquran daa xam ne ñees moom moo fi man bay sax demel man dama xool tal baa ngi def ku weex ku ñuul bay ma xam ne ñaas yaa mën a mbaal bal ama ñaas moo di sa mbaal war bu international moo may xamal do national bay ba yaa di international te mbir ya mool ci Sénégal tariqa teer yaa ko dundal te baale ko sunu rasul ndax seexi baay yaa koy saqal bay jóg taxaw di bay sa toor bar ama jóg dem ba kanoom fay do kanoom te al kanoom te moom kanoom du rey gune moo tax guneem yi raw jinne ma Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool tey Sénégal bay li ma waral tey Sénégal ay at sa tool doon sa misaal.
fay domba dem na ba Guinée tukkeem ya gis nga lim wane uti wuloon xaalis ma ne fay doom la doon yóbbu fu ne ma Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool tey Sénégal Sénégal li ma waral tey Sénégal ay at sa tool doon sa misaal.
ñëf def nga li gay ji woon ñoom mbiru dun yàllañ ji woon fay doom bi raw na yi njëkkoon comme ni janaatul addana Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool tey Sénégal li ma waral tey Sénégal ay at sa tool doon sa misaal.
makka ka woon ak fas ka woon moom a xamal ñëw ak ka woon ak gaye woon ànd ak ka woon tey mire ñaa niroo ga woon Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool tey Sénégal li ma waral tey Sénégal ay at sa tool doon sa misaal.
maam Abdoulaye maamam ya woon boo ko limee mooy addanaan li ma waral Ahmed Tidiane fay ko fay du addanaan Abdoulaye yaay suñu gaal moo doon sa tool tey Dëgg dëgg la.
Sénégal li ma waral tey Sénégal ay at sa tool doon sa misaal.
Afrique Europe ak Asia ak Moyen-Orient ak Awsiya tukulóor yaag naru gàdd yaa fa doom ba moom déggandi yaa Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
kuy conférence na seeti baay institut islamique moo di baay baay mooy ke tax xam-xam du jooy moo yore mbuut te dul ko jaar Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
Makka ka woon ak Fas ka woon moo may xamal ñëw ak ka woon ak gaaya woon ànd ak ka woon te Medina niroo ga woon maam Abdullahi maamam ya woon boo ko limee mooy Adnaan li ma waral Ahmed Tidiane fayee ko fay du Adnaan Afrique Europe ak Asia ak Moyen-Orient yaak Awsa ya tukulóor yaak naaru gàdd ya fay doom bi moom day gëndi ya kuy conférence da seeti baay institut islamique moo di baay bay mooy ki taa xam-xam du jooy moo yore mboo te du ko jaay gumba yi dem leen bay bayee nañu tay be leen ngeen gis la woon ba Abdoulaye ñu samta yoon te nee na fang daw si leen Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal waaw li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
gumba yi dem leen tay bayee nañu tay be leen ngeen gis la woon ba Abdoulaye lem na tata yoon te nee na fang daw si leen Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal waaw li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
kay ba arab yee ko tuddoon ndeke lu xam wolof la woon mbut lañ sa yoon ub ko fa woon ba ñes juddoo tey ba ñesee Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal baay li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
ma iya tey ba fi arab ka sundu péef xama arif li saaka jaa afey dina tey ba ñeseen li yen jëlee Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
ko ci arab lañ ca xamoon ma Abdoulaye gisaat ga woon xaleelu laay dëkkee ga woon ma Abdoulaye ko sem du ne Maam Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
ma iya ko ci fil arab kasun bi aqun fi sirab li mooy li waral ñu naan ci baay bi kaxsi al muslimin Maam Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
kapteenu gaal mooy yóbbu gaal kapteen ba teer na Sénégal ñëw na séggal xëy xer wu ñuul xet wuñ bañoon ne ndax matul Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
kapteenu gaal mooy yóbbu gaal Capitaine ba teer na Sénégal bay ñëw na sigil te xet wu ñuul xet wiñ bañoon de ndax matul ku weex di raamal nit ku ñuul gañ laa lu jiitu bay amul salum nga jël def ko sa saal lum tekki jaam may sa misaal Dakar a neex waaw ca Dakar déglul firim Dakar bu leer rijaalu laay ñoom ñoo fa teer ngir teertu baay borom ci kar ñëpp teelu nañ ñi nga dikke nga teet si seen far fi dëkke yaa tikki seen dem ba pekke bay lang fa def yaa ko njëkke Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal waaw li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
ñëpp teelu nañ ñi nga dikke nga teet si siin far fi dëkke yaa tukki siin dem ba pekke lang fa def yaa ko njëkke Abdoulaye yaa suñu gaal ba doon sa tool bay Sénégal waaw li ma waral tey Sénégal ay abdu toog doon sa misaal.
Kaolack Birame mooy Kaolack Maram Birame mi fay lakke bokkaale jaam ba duñ sikk ñun moo ñu laal ñu mat sëkk.
am na daal yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal li ma waral te Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
Barama lew na la yaroo sikar la jël di suukaroo lew na ba dem ca bayoroo ñes moo lewet te moo yaroo.
na Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal li ma waral te Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
ñes moo di jaaj ñes moo jaleñ day dem julem jar fa jaleñ jaleñ la woon te du jëriñ jox na ma dina li njëriñ.
na Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal li ma waral te Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
Barama lew na la yaroo sikar la jël di suukaroo lew na ba dem ca baayoroo ñes moo lewet te moo yaru ñes moo di jaat des moo jaleñ day junjuñ lam jaar fa jaleñ bàyyi jaleñ la woon te du jëriñ jox na ma diina luy njëriñ ma diina mooy mat diine baay diineem ju mat mooy suñu peey moo yore moo ti seex ya waay markasi sirri moo ko wey saf sàmm waay ñes moo di saam te ko fa saam mu duñ ko saam kon wuy su leen te nekk jaam ci seexi baay mi sañ ci saam am na daal yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal Yes.
li ma waral te Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
idaararam su mooy dundam lépp dana leer ci kaw mu dem loolu mooy li tax ma fees ci bàyyi commencé te ki ay junjam ma am na daal yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal li ma waral te Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
bay ku ko bañ bañ la deral karwaasi der yuy rey sa xol moo tax mu jóg romb daral ngir moytuloo ñi koy sikkal ma am na daal yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal Bye.
li ma waral te Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
këram nga daal sa soog saxaar moytul ñu yëpp la ci saxaar yóbbu saxaar nga am na xaar royal gannaaw ray ca Dakar Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal.
bay li ma waral tey Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
bëri na kuy te alxuraan te xamuloo seex ba ko yor li mooy li dal te gay réer ci seexi baay mi yore leen Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal. li ma waral tey Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
gërëm Dakar moo di jëppal xam ngeen ne jëppal moo di jàppal kon fay du baay bii dina taal Dakaru ak li mu taxool gërëm Dakar moo di jëppal xam ngeen ne jëppal moo di jàppal kon fay du baay bii dina taal Sénégal gi ak li mu taxool këram Dakar moo di jëppal xam ngeen ne jëppal moo di jëppal kon fay du baay bi dina taal Afrika gi ak li mu taxool yaa jóg jolof di wax wolof menes na xam gi mooy alif li bëgg ab ki yaa ñu saab moo tax ñu naan laqal arif ma Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal.
waaw li ma waral tey Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
yey way ku mbootu sombrière yaa peg ngelaw ba dootul peel ngelaw lu dem ci yow la jaar wolof sagam bi yaa ko yor ma Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal. li ma waral tey Sénégal ay abdu tool doon sa ah misaal.
jibrilu yow mooy sa sapoor bay sa sapoor am na waloor bootam sëriñ si yaa ko yor bu rasanaas moo koy kondi ma Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal. li ma waral tey Sénégal ay abdu tool doon sa misaal.
waaye mayul fi xubbi suur ñëpp dañu xam moomat sorboor suratu baay doy na si kaar fa suratul ma ifakura Abdoulaye yaay suñu gaal ba sëb sa tool ba Sénégal. li ma waral tey Sénégal ay abdu tool
dem bi tey képp ku ko xeeb doo dañ di des ñëpp di la xeeb ndax seexe baay mooy ser wi ñëpp ci penku xaar fu ab ci fee ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar bu xeet yi yëpp teg ca kaw yow soo doppul fonk ko yow soo ko deful ñëpp dañ la raw ngay des gannaaw dëkkee ko yow ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar baral ci baar am la nga xam ku bar ci baay yow foog nga am li mooy li xam la ñari ñam ñëpp a ci yem ku farlu am ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar sama ma jóg daweeli bi moo ñuy xamal ñes yaa di lépp karaamay baay nekkul di la baloo ci gis du liñ di xeeb Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar nga baay tuddee la Ibrahim moo may xamal ne dañ la yem xam ngeen ne baay ñëkk ko ko yem ku weex ko ñuul moo sut ci xam ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar maam Abdoulaye mooy baayi baay kan mooy ndeyem nel asuwaay te Abdoulaye ñëw utu baay ndey astu saar mooy soxna baay ay ci njàngam na ngeen ko xool na xel yi daw ndax man ko xool ndax dundi baay bi pasin la daal baay fi mu jaar doy na misaal ab doy jamaak tari ato satoy sato satoy sato ba dem doxam aqiqatu kon boote fay du mooy sato ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar jambi dundal sari ato dama dundal aqiqatu mooy seqi baay moo jël ato abodi bi baay mooy ato ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal waaw li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar gerte ku jël aso fi raw te aasi aas ci min ci baay sëriñ ci kon laf leen te ñëw aw leen fi naar yeeg aw sa aw ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar sama matu du jay la ñas moo ñuy xamal yaa jàlle ñas ko jàlle wut moom dana des day des gannaaw du jàll moom ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar te bàyyi baay mooy Muhammad moo ñuy xamal ne yaay ko mat yaay bàyyi baay su ma ko wéer misla abikum adama Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar damam nga ju dafa lañ nga ju yaay go ji góor ji yaay nga ju yaay ga ji lii sëriñ fi ji te liñ fi ji kenn du ko gaje Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar damam tu du mam bakara moo ñuy xamal yaa ñuy fikir kibletu ak mar yaa ko yor te ko taal moom dana leen ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar damam la miin ne yàlla man te kuñ ma leeralal maa ko man bure fi man te yaa ko man yaay bure buur yi yaay cosaan Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar damama tudd samba yow moo ñuy xamal sak samp yow samp nga géej ju xam yéraw semb nga mbir mu jëm ca kaw ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon tamit saar damama tudd mam rida moo ñuy xamal yaay murtada te ko gërëm mu am rida yaa murtada yaa murtada ma Abdoulaye yaay suñu gaal ma sëb sa tool ca Sénégal li ma waral ca Sénégal ay ab tool doon ba misaal.
sama ma tuddum Samba yow moo ñuy xamal teg samp yow samp nga mbir mu jëm ca kaw semb nga mbir mu jëm ca kaw sama ma tuddum am rida moo ñuy xamal yaay mu tada baay te ko gërëm mu am rida yaa mu tada yaa mu tada sama ma tudd démb yow moo ñuy xamal yaay démb yow yaa del ci waat ci te di xool yaa ñu indi lu ca doxal sama am tudd mam masin moo ñuy xamal ne yaay masin te yaa taal fay du ca siin ñett yow Suleymaan ngay wane.
Abdoulaye yaay suñu gaal ba doon sa tool dem Sénégal.
li ma waral te Sénégal yaa su toog doon sa misaal